mooy ida staxala dem soxla woon nit ñi bil fadaili ci ngëneel yi tastaxil na nga soxla woo anta yow bil faraidi ci farata yi wa ida staxala dem soxla woon annaasu nit ñi bil xalqi ci mbindeef yi fastaxil yow na nga soxla woo anta yow bil xaalixi ci aji bind ji wa ida staxala dem soxla woon annaasu nit ñi bil ilmi ci xam-xam fastaxil kon na nga soxla woo anta yow bil xamali ci jëfe xam-xam wa ida staxala ndeem soxla woon annaas nit ñi bi zahir ci zahir fastaxil na nga soxla woo anta yow bil baatini ci baatin wa ida staxala ndeem soxla woon annaas nit ñi bi duniyaa ci àdduna fastaxil na nga soxla woo anta yow bi imaaratil axirati ci dundal alaxira wa ida staxala ndeem soxla woon annaas nit ñi bil xiyoo bi ci gëstu sikki jàmbur yi fastaxil na nga soxla woo anta yow bi xiyoo bi nafsika ci sikki sa bopp abu hurayrata dane dama demoon ci yonante bi ne ko dénk ma te gàttal dénkaane bi mu ne ma maa ngi lay dénk juróom benni baat yoo xam ne ëmb na juróom benni téeméeri njariñ baat bu jëkk bi mooy boo gisee nit ñi ñu yittewoo ngëneel bàyyi farata yow day na nga njëkki farata jox ko te bañ fàtte fàttee baril say ngëneel maanaam ngëneel mooy loo xam ne yàlla sopp na ko waaye waralu ko ci ab jaamam loolu nag balaa baax jaam ba boole ca di jox farata mel ne bu dee saraxe mbaa muy joxe addiya te fekk mu am ay bor yu war a fay mbaa ku amel àq te joxu ko àq ja su boobaa ma ngay soxlawoo ngëneel bàyyi farata ab jaam nag day jiital farata te bari nag xeeti ngëneel yi loolaay tax mu am ngërëmal yàlla baatu ñaareel bi mooy mu ne ko boo gisee nit ñi ñu yittewoo mbiri mbindeef yi fàtte yàlla mi nga xam ne moo sàkk mbindeef yow day na nga xam ne moo sàkk mbindeef ndax yàlla moo sàkk lu ne te lu ne moo cay soppandiku kon nag bu la dara ci mbindeef yi fab bi ba nga fàtte yàlla sa boroom ñetteel bi mooy boo gisee nit ñi ñu yittewoo xam-xam tey sàggane jëfe xam-xam ba yow day na nga fexe ba boole yaar yëpp xam-xam moom mooy fondement bi bu amut jëf du mën a am waaye nag bu amee xam-xam kese te jëfewoo xam-xam ba day mel ne ku fondement rekk ab tabax te tabaxu teg ca kooku du am fu mu fatu du am fu mu dugg kon nag boo gisee nit ñi ñu yittewoo rekk xam-xam bàyyi jëfe fexeel yow ba boole xam ak jëfe baatu ñeenteel bi mooy mu ne ko boo gisee nit ñi ñu yittewoo jagal bitti fàtte jagal biir kon yow fexeel ba bañ a fàtte jagal sa biir maanaam sa biir muy sa xol ak sa yéene sa pas-pas bu xësee baax rek lépp bitti bi daldi baax kon nag nit ñi biñ dee yittewoo rek jagal biti fàtte biir yow day fexeel ba jagal yaar yépp waaye njëkkee la jagal biir ba ndax su biir bi baaxee rek biti bi danga koy topp ca baax ga ba ca topp mu ne ko boo gisee nit ñi ñu yittewoo àdduna fàtte alaaxira yow day fexeel ba jiital alaaxira te bañ koo fàtte mukk mukk ndax alaaxira mooy dund ga jeex àdduna moom day jeex fi saasa te faaw rek li la fi yàlla bindal ni danga ko am danga ko am lum ne doo ko ci amit doo ko ci am kon nag bu nit ñi yittewoo daal àdduna fexeel yow ba sa yitte jëpp nekk ci luy tax sa ëllëg jàkk te mooy alaxira loolu moo doon juróomeel ba juróom benneel nag mu ne ko boo gisee nit ñi ñu yitte yoo xam sikki jaambur yow day fexeel ba jéem xam say sikk te fajtal ko ndax kenn ku ne ay sikkam rekk moo ko te am pajuk aajo te kenn ku ne sikkus boppam rek moo koy lor waaye sikkus jàmbur moom du ko lor xanaa jekki di wax sikkus jàmbur day di ci gàddu ay bakkaar loolu de moo koy lor ci sikkus jàmbur waaye bu waaye ne patt ci sikkus jàmbur te jéem xam sikkam te di ko defar rek mu nga ca yoon wa xikmatun lii xikma la maanaam wax bu am njariñ la tu xassanu def na sëŋeele tamaanun juróom bi samaanin ci juróom-ñett yi daal mooy taxa mucc ci juróom yi mu wàññi bil abdali ci maandu fil mantiqi ci aw làmmiñ lañuy mucce min malaamatil julasaayi ci yedduk toogandooyee al julasaawu jàmp jalis la mooy ñamuy toogal wa bi ruyati ca gis ga fil li ci wax ja lay mucce minal xata ci njuumte wa bi husnil lafzi ci rafetuk baat ba lay mucce minal adaa ci lor wa bil insaafi ca maandu ga lay mucce mina i'tidaa yi ci ak jalgate wa bi liinil kaf ci nooyu teng lu nooy lay mucce mina jëfaay ci bëcc ngéel wa bi tawaddudi ci ak sopp sopplu lay mucce min zahairil a'daa yi ci way ndaway noon ya wa bil muqaarabati ci ak digg doomu wala ci tolloonteeg nit ñi lay mucce minal istitaalati ci jéem a yoqamtiku ci seen kaw maanaam bëgg leen féete kaw wa bi tawasuti ci digg doomu it fil umóori ci mbir ya ci lay mucce minal xuluwi ci ak teengal maanaam ci weesu yemukaay ba ëppal ëppal boo bëggee mucc ci yaraangey ña ngay toogaaleel na nga amuk maandu ci sa làmmiñ mooy la ngay wax na nekk wax ju maandu mooy tax ña ngay toogaaleel duñu la yedd boo bañee juum ci say wax del seet la ngay wax njëkk bala ngaa wax boo bañee lor kenn mbaa kenn lor la fexeel ba baat yi ngay wax nekk baat yu rafet boo bëggee bañ a tooñ na nga amuk maandu jox ku ne àqam te bañ a téye ci àqi jàmbur dara boo bëggee mucc ci ñàkki teggin bi béccee ngale wala jëflante gu ñaaw ak keneen boo ci bëggee mucc na nga ànd ak tengulu nooy mooy di saafuxante di di jàmmante ànd ak tey loolu mooy tax ñu xame la jëflante bu rafet kenn du xam ci yow luy nuru ñàkki teggiin walla ñaawu jëflanteeg nit ñi ba tey di jéema a feeñal cofeel sa digganteeg doomi aadama yi mooy tax doo am sax noon yu ndaw rawante na noon yu mag ba tey ci jéem a yemale sa bopp fa mu war a yem jàpp ne yaa féete kaw nit ñi loolaay tax nga mucc ci di leen jéem féete kaw ba tax ñëwul batiku di la xeeb ak a noonoon teg yow bi ci mujj nag mooy fexe ba mbir mu ne nga am ca diggu doomu bañ ca ëppal bañ caa yéesal kon taxoog diggu doomu ci mbir mu ne mooy tax nga mucc ci teengal mbir yi ëppal mbir yi àggale leen fu ñu àggut waxan rasulillahi jële nañ ca yonante yàlla ba sallallahu alayhi wa sallam xaala mu ne ida uh di sat ndeem soseef na tisatu ashyaa juróom-yeenti yëf kaana kon am maxaxa ànd ak ñoom tisxatu asiya juróom yeenti yëf ida katura bu bare azjina njaaloo katura kon bari mawtul faj ati deewuk mbetteel wa isa taffafoo ndeem mbabu nañu almik nattukaay ba axadahum jàppe leen allahu yàlla bis sini na ci ay ati bekkoor wa naqsi ak wàññikuk alal wa isa manaxoo ndeem bañ nañu azakaata asaka manaxatum aaye leen xañ leen al ardu suuf si zakataha barkeem wa idartaka boo ndem toggoo nañu al maharima ya ñu araamal taraqathum kon rañaan leen al afaatu xeeti gàkk yi wa ida jaaroo ndem jeng nañu fil ahkaami ci atteya chamilahum kon daj leen ak zulmu tooñ wal xudwaan akuk jalgati wa ida naqadoo ndem firi nañu alxaxda kóllëre ga sallata kon xabtal maanaam kon xiirtal allahu yàlla alayhim ci seen kaw xaduwahum seeni noon wa isaa xataxoondem dagg nañu al arxaama ya mooy mbokk ya joxilat kon defeef al umuru mbir ya bi yadil ashraar yi ci loxoy kiis ya muy ñu bon ña wa isaa lam yantaxoo ndéem bàyyiwuñu anil munkari walis lu bon mallakahum kon yàlla moomale leen shiraarahum seeni kees faxiina isin ci waxtu woowee yaddoxoo dana ñaan xiyaaruhum seeni tànneef fala yustajaabu te déeful nangu ñaan lahum ñeel leen mu ne leen ci yonante juróom-yent yi su amee juróom-yent yi daal di am bi ci jëkk mooy njaaloo su baree deewuk mbetteel dal di bari ñaareel ba mooy suñu dee ñàkk matal natt ak peese maanaam kuy peese jëme ci sa bopp mbaa natt jëme ci sa bopp mu mat sëkk te bu jëmee ci keneen nag nga mànkil ko loolu su amee yàlla dana indi ay ati bekkoor ak ñàkk wër sëkk ba ca topp mooy suñu dee bañ joxe asaka yàlla de def suuf si ci boppam ñàkk barke nga xam ne lu taw bi bari bari ak lu ñu bay bay du tax mbay ma nangu du tax ñu am ca lu am solo bi ci topp mooy suñu dee toggoo yi yàlla araamal ci ñoom faaw rekk yàlla di leen teg ay musiba ak i gàkk ak i nax-nax ba ca topp mooy bu ñu àttewul ci maandu xanaa di àtte ci jeng rekk yàlla day def ak tooñante akuk jàppanteeg xeexanteeg ñàkk jàmm daj fépp fépp bi ci topp mooy bu ñu dee fecci kóllëre yàlla daldi xabtal seen noon ci seen kaw ba ca topp bu ñu dee dagg ak bokk yàlla day jël mbiri àdduna yi teg ko ci loxo yi ñu bon ña ñu baax ña nag des ca gannaaw li gannaaw bi ci mujj nag mooy suñu dul bàyyi lu bon xanaa sëgg ci rek yàlla day def ñu yées ci ñoom yore mbir ya ñu baax ña nekk ca gannaaw te itam ñu baax ña yooyu jamono buñ ñaanee itam du tax yàlla nangu seen ñaan xikmatun li xikma la waftaxara dama woon na aliyun aliyu karamallahu wajha bitixi kalimaatin juróom-ñeenti baat min jawaahiril xikmati ci wurusi xikma talaasun ñetti baat fil munaajaati ci deyaaleeg yàlla mu ne woon kafaa doy na biyee ci man xiisan ci tedd nga an nga nekk rabban di ab buur lii ñeel ma wa kafa doy na bee ci man faxaran ci ndam ak akkoona mu nekk xabdan di ab jaam laka ñeel la wa anta yow day kama uhibbu yaa ngi mel ni ma soppe lii ñeel ma fa wafiq nii kon yal nag ma tawfiqale li ma jëm ci la nga xam ne tuhibbu da nga ko soppoo al imaamu yi nee na waxan na juróom-ñeenti baat yoo xam ne baati xikam la yu rafet rafet ba mel ni wurus waaye da ko defoon ay ñett ñett ba mu yetti ñett yetti wax yu njëkk yi dafa aju ci déewaaleem ak boroomam daa déewaaleeg boroomam ne yàlla man day doon gi nga doon saa boroom doy na sëkk tedd nga muy benn doon gi ma doon sab jaamit doy na mu sëkk ndam ñetteel bi nag mooy man day na mel ci man sama xol sedd na ci doy na mu sëkk ma bëgg nag nga taw fii xale ma may itam mu mel ci yow na nga bëgg ma mel na kon daal ni nga mel ci man sama xol sedd na ci may ma nag ma mel na nga bëgg ma mel na wa salaasun yet fil xilmi nekk na ci xam-xam mu ne almar u cam sa max bu un ko ñu denc la taxta kalaamihi ci ron xam ak takkal la takallamu wax leen toorafoo kon def na leen xam ak xiimatu kulli mri in xaymay settus cam maa la nga xam ne yuxsinuhu dana ko rafetal wax na yett léegi mu ne yett yi moom daa aju ci wàllu xam gu wér maanaam yetti wax la yoo xam ne day xam-xam bu leer a leer boo xam ne loo jeex-jeex li mu wax moom dara du ko mën a toppal loo jeex-jeex gis rek xam gu wér bu set wecc bu kenn mënta toppal wax bi jëkk ci yett yi moom dafa jàppanteeg waxu ñaareel bi ndax daa njëkk ne nit day mel dañ koo denc ci ron làmmiñam maanaam daal nit bu ne pat rek waxul mënees na ko bañ a xam mënees na ko bañ a xamal dara lam ca tegit mooy wax leen ñu xam leen kon ñaari wax yooyu dañoo jàppante nit bu ne pat rek kenn mën na koo bañ a xamal dara waaye nag ku wax rekk feeñ ñetteel bi ci yett yi moom dane nit ku ne boo bëggee xam nu darajaam tollu seetal la mu def ci lu baax ak la ko lu baax jaral nit ku ne daal na mu bëgge lu baax ak na mu ca nangoo sonne ak la ko lu baax jaral noona la darajaam tollu wa salaas ñett fil bi nekk na ci sew sew wala nga ne ci teggiin mooy anhim xéewalal xalaaman ci ita ca kala soob te kun kon nga nekk amiraho di buuram wastaxni na nga doylu xam man wëlis nga xam ne ci soob na la takun kon nga nekk nawi raxoo di ndendam wasal te nga laaj man chita ku la soob laaj googu mooy laajug yelwaan takun kon nga nekk asiraxoo di ku ñu jàppam maanaam mel ni ku mu jàpp ba yeewu ko yett yi mujj dafa aju ci jëflanteeg doomi aadamaak moroomam kon sew sew la bu aju ci jëflanteeg nit ak moroomam bu la neexee ne teggin la bu sew a sew daa njëkk wax ne koo defal lu baax rekk daal daldi soppiku buuram kon as gor boo ko jiyee njëkk rekk day gore ba mel ne yaay buuram muy sab jaam ba ca topp mu ne fexeel ba doylu bañ a wéeru ci kenn bañ a sàkku loxol ndimbal ci kenn ndax nit lu mu la ëpple ëppale ak lu mu nur nur ne moo la féete kaw su fekkee ba nga ko romb bu diwee rek doo ko soxlaal dara dara dara su boobaa sa morom rek la waxu ñetteel bi dafa jàppanteeg yaar yooyu ndax dañu moom koo dem ci moom di sàkku ci moom ndimbal rek day mel ne moo la moom nit nga xamee ne koo soxlaalul dara sa moroom rekk la xamal ne koo xës soxlaal nag dem di sàkku ci moom mu xet li la daal ngay soppiku mel ne ab jaamam bu moom ba yeew moomatoo sa bopp kon ni mu waxee ci gàttal mooy da fexe ba di tàllal sa loxo di dimbalee te nag doo tàllal mukk sa loxo di sàkku ndimbal loolu daal bokk ko ne jéem ko ndax koo ji njëkk rekk koo defal njëkk rek bu dees gor day soppi ku mel ne sab jaama koo xam ne itam lu yàgg-yàgg boo ko soxlaal dara dara xamal ne sa moroom rekk la waaye nag saa yoo demee ci keneen talal sa loxo rekk di ko yelwaan dal ngay soppiku ab jaamam bu mu moom ba yeew ko boo ko yëgeeg boo ko yëgut wa jaafar as-saadiq tisxatu xisaalin juróom-yeenti jikko yi xassa jagleel na allahu yàlla bihin na ci ñoom rusulahoo ay yonanteem famtaxinoo na ngeen nattu am fusakum seen bopp fiihin na ci ñoom fa in kaanat ndem nekk nañu fiikum ci yéen faxmadoo sant leen allah yàlla alayha ci ñoom wa illaa ndem nekkul ci yéen fasaluhu na ngeen ko ñaan moom yàlla iyaaha ñoom juróom yent yooyu waxiyee ñoom al moo di ak wóolu wal qanaahatu akuk doylu wa sabru ak muñ wa shukru ak sant wal xilmu ak lawet wa xusnul xuluxi ak rafet jikko wa saxaaw ak tabe wal xiiratu ak fiir wa shajaaxatu akuk njàmbaare ku ñu wax jaafar as sadiq neena na juróom-yent yi day yàlla ci boppam da ko baaxe ay yonenteem da ngeen seet nag seen bopp bu baax a baax bu ngeen ci gisee juróom-yent yi na ngeen dollee sant yàlla su ngeen ko amul nag ngeen ñaan ko yàlla ndax mu may leen ko juróom-ñeent yi ba ci njëkk mooy yaqiin jaam bi xolam dal wóolu boroomam bañ am sikki sàkk ci boroomam mbaalu aju ci diineem ji ñaareel ba mooy amuk doylu ndax àdduna doylu rekk fi nekk waaye doyal moom yombut ñetteel ba muñ rafetuk muñ ñeenteel ba rafetuk sant yàlla juróomeel amuk lewet juróom benneel rafet jikko juróom ñaareel tabe ci alalam ak aw ñaqam te yàlla tax juróom ñetteel fiir fiir mooy lépp lu yàlla bañ da cee fiir ba du bàyyi kenn di ko def ci lamu yilif ak ñamu yilif juróom ñeenteel nag mooy mu amuk njàmbaar sori ak yëfus ku gëm yàlla dafa war a jàmbaare te bañ a yëfus waru wiye net leef na xan rasulillahi jële ci yonante yàlla ba sallallahu alayhi wa sallam ni annahu naka moom xaala waxoon na ne xashrun fukk min ummati ci sama xeet wi yasqatu dana mere allahu yàlla alayhim ci ñoom yowmal qiyaamati ca bis penc wa yamuruhum te mu leen di digal bi yi ci dox maanaam ci dem ila naar jëm sawara ko ne ko yaa rasulallahi man man xaawulaayi ñan ñoo di fukk ñii xaala ne a cheikhu góor ga azzaani gay aji njaaloo wal imaam ak ilimaan ba ab daal lu bay aji réer wa mudd minul xamri ak aji saxal sàngara wal maashi ak aji dox bin namimati ci rambaaj wa shaahidu zori ak aji seere neen wëllës yi ak a nga xam ne yanzuru dana xool li waalidayhi jëm ci waa waajuram bi aynil bi ci bëtub mer wëllës yi ak a nga xam ne yu talliqu dana fase wa yumsiku te muy téye ka mu fase wëllës yi ak a nga xam ne yaxkumu dana àtte bil jawri ci jeng wa taariku salaati ak aji bàyyi julli am na fukk ci saa xeet yi ñoo xam ne bu ëllëgee ci bis ci yàlla saa boroom da leen di mere ne leen ay ca dem leen sawara ñu ne ko ñooñ ñana mu ne mu ne am màggat moo xam ne la muy màggat yépp téewu ko di njaaloo xëy na njaaloo gone ci tani baaxul ci kenn waaye màggat mu màggat ba noppi di njaaloo moo jëkk ci fukk ñooñu ñaareel ba ilimaan ju réer ilimaan ju awut ak mbooloo ma fa war aw bu réeree daldi réeral ña toppoon ci gannaawam ñetteel ba kuy saxoo naan sàngara ñeenteel ba ku sëgg ci rambaaj rekk di yàq diggante nit ñi juróomeel kuy seere neen seere neen mooy seere loo xam ne wóoru ko doon ci sax tombe la amit waaye bu nga koy seere wóoru ko rek loolu seere neen la ka ca topp mooy kuy xoole ñaari waajuram bëtu mer xam nga nit dafa war a xoole ñaari waa waajuram bëtub yërmaandi ak sopp kon nag kuy xoole ñaari waa waajuram bëtub mer bokk na ci ñooñu di dem sa ka ca topp mooy ku fase jigéen ba noppi taxul mu bàyyi ko xanaa téye ko ku fase jigéen day seet su ko yoon mayee mu sañ a fayli mu ànd ak yéen ju rafet fayli ko te téye ko ndax dañuy bañ itam mu fayli ko fayli goo xam ne da ko bëgg a téye keneen du ko takkaat rek waaye ci dëgg-dëgg amu ca xemmem loolu lu araam la kon ku fase jigéen te téewul mu téye ko bokk na ci fukk ñooñu ku ñuy àtteloo mu bañ a àtte ci maandu xanaa di àtte ci dëng ak nag ku bàyyi julli bàyyi julli dafa bokk ci bakkaar yu mag yi xikmatun lii beneen xikma la waxi la waxees na ne laatis xata déet juróomi yent li man ñeel koo xam ne laatis xata déet juróomi yent la di ko ñeel laa fadla déet ngëneel li man ñeel koo xam ne laa xaq la déetum xel la di ko ñeel wala sharafa di tedd nga li man ñeel koo xam ne laa ilma déet xam-xam la di ko ñeel wala sawaaba déet ab yool di ñeel koo xam ne laa xamala déet jëf la di ko ñeel wala ajra déet ab yool li man ñeel koo xam ne laa niyatu déet yéene la di ko ñeel wala diina déet diine li man ñeel koo xam ne laa xafaafa déetug fegu laxu di ko ñeel wala sadiqa déetub xarit li ñeel koo xam ne laa xuluxa déet jikko laxu di ko ñeel wala ra'iya déet xalaat li man di ñeel koo xam ne laa sabaata déetug sax laxu di ko ñeel wala riwaasata déet kilifteef wala njiit ak jiite maanaam li man di ñeel koo xam ne laa xilma déetug lewet lahu di ko ñeel wala xayra déet aw yiw liman di ñeel koo xam ne laa karama déet tedd nga muy tabe lahu di ko ñeel ne lii wax la bu am njariñ dañoo wax ne ku amul juróom-ñeent doo am juróom-ñeent la ci njëkk mooy ku amul xel du mën a am ngëneel ndax xel mooy cosaanal mbaax ak ngëneel ñaareel ba ku amul xam-xam du am dara ja ñetteel ba ku jëfut du am tuyaaba ñeenteel ba ku ànduta yéene ju sell ca la muy wax ak a jëf bu mu séentu ab yool kenn du ko fay ci jëf ji dara ba ca topp ku amutug fegu maanaam seexlu lépp lu mat a seexlu ku amut seexlu googu du am diine ju sotti diine moom aw boroom day ànd ak laab di seexlu lépp lu mat a seexlu ba ca topp ku amul jikko ju rafet doo am xarit mbaa boo amee xarit it mën na du yàgg ba ca topp ku waye di du am xalaat maanaam lu waay rafet rafet xel xalaat na ca boole ak way waaye ku amutug way bu xalaatee ba gisit du tax mu am dogu sax ca la mu xalaat wéy ca ba jariñu ca moo ku amul xalaat ñooye moo ba ca topp mooy ku amul ak lewet